ñi nga xam ne ñooy seetaan seen seen seen clic ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne moom lañuy faral am ak yéen te ñu tuddee ko majalisul ulama sualun wa jawaab te mooy jeetaayu boroom xam-xam yi ñu teg ko nag ci laaj ak tontu mu mel ni nag tey incha allahu ñu dellusiwaat tey ci émission boobu ñu seet si benn kilifa benn imam al oustaz docteur ñu tuddee ko Abdoulahi Lam xam naa ni dinañu ko jox mu présenté wu wax ñu jaar-jaaram bu ko defee ñu doog a commencé moom émission kon bu ko defee oustaz gannaaw bi ñu dalalee teeruñu waxuma ndax dara waaye yombalal gi ñu yombalal daje bi nga xam ne moom téléphone am daanaka moom lañ doon woote nga xam ne moo ñuy woo di ñu tegtal ba ñu yegsi ci kër gi fa tabarakallahu kon loolu ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax ci jàppandal bi waaye jaarale ko nag ki nga xam ne mooy sunu wëllëre mooy Ibrahima jàlloo moom moo ma joxoon numéro ba ma woo ko mu jombalal ma ko lool fa tabarakallahu kon bu ko defee incha allahu dañ koy jox moom mu nuyoo su ko nuyoo ba pare présenté ko présenté boppam jaar-jaaram ci wàllu daara waaye jaar-jaaram ci wàllu àddina ba fi mu toll nii ci lan la yëngu comme nee nañ mooy ki nga xam ni ci jamono ji ñu toll moo jiite jamiyatu ibadu rahman fii ci senegal kon moom lañuy ñu dalal mooy sunu gan kon bu ko defee fadel oustaz lekkal kalima alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alim al hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu si Ousmane ñu ngi lay nuyu yow ak sa équipe bi nga àndal ak seen chaîne bi di leen ñaanal tawfiix di leen ndokkeel ci koor gi di ndokkeel mbooleem ñi leen di seetaan ak fu ñu mën a nekk di leen ñaanal jàmm ñoom itam ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala nangul leen nangul ñu nangul mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi woor ci woor wi di profito ci départ bi ñaan borom bi subhaanahu wa taala natt bi nga xam ne moom la teg àdduna bi mbas mi mu leen teg ñu ngi koy tàllal moom yàlla loxo di xam ne moom mooy ki nga xam ne moo man lépp mooy ki nga xam ne mooy tege natt di nangu ne natt bu ko defee tege ci kaw suñu kaw rek ñun ñoo def lu tax mu teg ñu ko di ko ñaan moom yàlla yal nañu yërëm di ko ñaan moom yàlla yal nañu nangul suñu tuub nangul suñu njëgg li ñu ko sàkku ba yëkkati ñu euh, Cheikh <coughs> fekkee ci wàllu euh, njàng la man maa ngi dalee jàng Koungheul ci góor gu ñuy wax sëriñ Sam Ndiaye mooy sama turando Abdoulaye njaay la tudd euh, moo ma dalal jàng mooy sama maam sama yaay mooy taawam jógee fa dem dëkk bu ñuy wax Niassène Waalo ci département Nioro ci góor gu ñuy wax Alaaji Amat ñes def naa ci moom ñeenti at jàng alxuraan del si sama papa ñooro la nekkoon boo ko jox Ibrahima Lam ma jàng ci moom itam alxuraan delluwaat dëkk boobu ñuy wax ñaseen jàng fa arab ci ustaas bu baax bu ñuy wax alaaji Ibrahima Ñang dëkkoon Saalum ci dëkk bu ñuy wax misra diina ci weti Kër Madiabel ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm ñoom sama sax yëpp yàlla jéggal leen yàlla xare aljina ñoom nga ñi ma jàng ci wàllu daara ñi ma jàngal yépp fi mu ne kenn nekkatu fi waaye ñu ngi jokk ak seen njaboot toujours euh, bu après laa ñëw Kaolack fa laa jànge alquran euh, fa laa jànge arab euh, ci jamiatu shabib al islamia dem école sëñ Mourtala bi nekk kawlax ñun ñoo fa njëkk am certificat arabe sama promotion bi njëkk am certificat arabe jógee fa dem école Abdoulaye Niass bu Medina Baye voilà amee sama euh, BFM arabe mm-hmm. euh, jógee fa nag jàng ci ñu bëri mm-hmm. ci biir Sénégal ay euh, sëriñ majalis mm-hmm. Cheikh Daouda Li Oustaz Malick Ndiaye Oustaz Karim Gueye professeur Alioune Guèye ak ñeneen dajale ba def candidat libre bac ci jamaatu Ibad Rahman jógee fa am bourse dem Mauritanie ci université Arabie Saoudite bi fa nekkoon ma def fa ñeenti at am fa diplôme bu ñu tuddee bachelor muy bac plus 4 ci charia ñibbi si Sénégal ci diggante boobu yëpp nag jàngal jàng naa fi jàngale naa fi liggéey naa fi waaye ma jógee fii ci fin quatre-vingt-dix-huit dem Jordanie def fa ñetti at am fa moom itam master degré moom itam muy bac plus sept ans après ma jógee fa ñibbi ci Sénégal dugg école normale supérieure euh, def fa ñaari at am sama KS mooy diplôme bi nga xam ne eh, ñuy jàngale ci lycée yi moom lañu war a am foofu génn commencé jàngale depuis 2005 waaye ci sama biir njàng fiq mooy sama taxasus fiq wa usuluhu mm-hmm. fiq ak euh, sama thèse bi ma bind risaala bi mu ngi tudd ahkaamul agniya fil fiq al islaami lépp lu jëm ci wàllu koom ak alal ak fu ñu koy jëlee nuñ koy saytoo fu mu war a dugg loolu moo tax bi ma ñibbisee ñi ma commencé xam bi fi finance islamique commencé feeñ boole ma ci ñi nga xam ne mm-hmm. ñu ngi saytu finance islamique ci institut bu mel ni institution bu mel ni PAMECAS mm-hmm. depuis 2010 ba léegi maa ngi liggéey ak ñoom ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci terrain bi mm-hmm. di yëngatu ci euh, loolu fii laa nekk ci koñ bi laa dëkk fi laay jàngalee ci CM bi actuellement fa laa nekk comme professeur d'arabe jamaat euh, Ibaadu Rahmaan nag maa ngi leen xam euh, ci weeru rajab euh, ci 1984 boobu maa ngi sigation commencé leen ànd ak ñoom lu war a mat ñeenti at 84 85 86 87 ba 88 sama adhésion dëgg dëgg dëgg février 88 laa ci adhéré boobu ba léegi nag maa ngi nekk ak ñoom di liggéey ak ñoom fekk muy mbooloo mu yaatu mbooloo moo xam ne damaa gis ne dañuy liggéeyal lislaam di góorgóorlu di sellal di def ay sacrifice ngir lislaam eh, nekkuñu ci la ñu nekk ngir ay maa ngi fàttaliku sama benn kilifa mos na wax ne ba nga duggee ci màtt baraxam ba léegi amul dara ma ne alhamdulilah kon ndekk utuñu ci dara yàlla rek lañ ciy wët fekk muy mbooloo mu yaatu dënn mbokkoo jullit yépp am ak ñëpp relation di jëflanteeg ñëpp jëflante bu rafet ci seen kalaay kem talaay kattan damay faral di wax ne toujours ay nit lañ comme ñëpp nag mhm. nit moom nit la rek nit ko amul sikk amut mbooloo mu amul sikk amut demee ci biir murid di fekk koo xam ne da nga kii murid la cam mhm. biir tijaan di fekk cam biir ibaadu da nga fekk cam loolu mooy problème nit biir jullit yi sax mhm. xeetu yonent yàlla Muhammad nekk jullit sax di nga ci fekk koo xam ne da nga naan jullit na mel nii kon mbooloo moom ci laa ne di ci yëngatu ba Euh, am naa ci ay responsabilités yu ndaw ndawaan ba 2012 euh, ñu toftal ma ci ki jiite mbooloo mi ñu sunu sëriñ inspecteur sëriñ Baabu kenn yàlla guddal fanam yàlla yokk ko wér euh, bi ñu fi jógee ñu ànd juróomi at ma topp ci moom ba pare yor formation ci biir mbooloo mi ba 2017 bi ñu defee seen congrès ci lañ ma teg ci boppu mbooloo mi am na fi mu nekk nii euh, mat na ñetti at yu mat sëkk ba dugg ci ñeenteelu at kon ci tënk bu gàtt euh, ab jàngalekat la ab imaam laa euh, di liggéey ci senegal ci wàllu lislaam di jàppalante ak samay mbokki jullit yi fi nekk yàpp ci al amru bil maaruf wa nahyi munkar lu baax tere lu bon mm-hmm. waaw loolu daal mooy sunu liggéey ci tënk bu gàtt maa ngi dund ak sama soxna mm-hmm. ak samay samay doom tabarakallahu ah fadilatu cheikh jazakumullahu xayran eh, mbokk yi yéen ñi seetaan def naa ne ki ngeen déglu mu présenté boppam ak jaar-jaaram eh, jàpp nañ ne yaakaar nañ ni di taxoon ñu ñu tànn ko pour ñëw ci moom dinañ ci am satisfaction insha allahu kon bu ko defee oustaz ci ni ñu déggee mu présenté boppam e, li ñu ko bugg a njëkkal laaj te wax na ko sànq sax te mooy bi muy commencé dafa wax ci ñaan pour nattu bi nga xam ne moom la yàlla teg kon lu mel ni feebar bi nga xam ne xew na lëmbe na àddina si oustaz kon man sama laaj ci foofu lañu koy commencé kon bu ma la doon laaj damay wax ni li ñu tuddee corona hal huwa ibtilaun am balaaun ndax damay laaj ndax nattu la bu ñu yàlla nattu walla balaa la wala mer mu ñu mere wala mer mu ñu mere damay laaj lu tax mooy li yonent bi waxoon ci benn xadis li mu waxoon ni juróom a ngi nii suñ leen demee ba nattoo leen juróom yooyu yàlla dina leen teg yeneen juróom uhuh. yoo xam ne mooy ànd ak yooyu uhuh. dama xamul nag xaddis boobu dafay dellusi ci pour euh, li xew wala déet ustaaz alhamdulilah Cheikh Ousmane borom bi subhaanahu wa taala bu ko neexee mu teg nit ñi ay nattum bu ko neexee mu teg leen ko ndax àdduna bi ci kër kërug nattu la alladi xalaqa al mawta wal xayaata mhm. li yabluwakum fii daf ñu fee indi ngir nattuñu kër gi ci boppam mooy këru nattu nattu yooyu nag dafa baax ci nit axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun li yumaxisa allahu alladina amanu wa yamxaq alkaafirin natt dafa am solo <clears throat> nattu ci lañuy ñuy xamee ñi gëm dëgg-dëgg ci lay feeñee ña ci des itam ci lañuy ñuy feeñee nattu yàlla da ko indi pour segg pour segg nit mi kenn ku ci nekk feeñ yaay kan loo mën loo mënut li ngay wax lu ci am ak lu ci amut kon bu ko neexee mu tege nattu te nattu dafa baax day segg génnee ñi dëggu ak ñi dëgguwul ñi baax ak ñi baaxul ñi jub ak ñi jubul ñi mën a muñ ak ñi ko mënul ñoo xam ne dañuy ñénki waaye encore yàlla da ci bindal ñim ko teg ay tiyaabo leen ci yéegee ay daraja leen ci sippil ay bàkkaar kon nag dafa baax yonent bi sallallahu alayhi nee na jullit bu ko dégg jamee sax dégg yàlla dina ko ci faral ay bàkkaar bindal ko ci ay tiyaabo yokk ko ci ay daraja kon natt moom amul benn problème dara nekku ci mook dund bi moo ànd yonent bi sallallahu wax na ne ku la gën a gëm yàlla gën laa tar mbugal gën laa tar nattu waaw yonent yi ñoo gën a tar nattu ñee ci topp topp ñee ci topp topp ña borom bi subhaanahu wa juróomi yonent yi mu tànn tuddee leen ulul mi ba muy waxee yonent yàlla yoonu sax dana ko jëlal ñooñ comme royukaay fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul jël leen exemple muñal comme ñoom kon muñ buñ ñu ko rek nattu moo ñëw waaw nattu moo ñëw alquran wax nañu ne yàlla nee nañu naa leen teg ay nattu mais muñ laa soxla ci yéen waaw ah. danañ teg ay nattu muñ laa soxla ci yéen noonu dañuy wax ci alxuraan wa bashiri sabirin la ko jeexale mm-hmm. wa bashiri sabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim darajatun min rabbi wa rahma wa ulaika al muhtadun kon natt moom dara ne lu baax la léegi nag ma profité foofu wax ne borom xam ne dañuy wax ne li indi tarbiya wa yuzakkihim mm-hmm. ko indi mooy nit ki dañ koy préparer ba bu nattu ñëwee mu mën koo dékku wa idh ibtalaa ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atammahunna qaala inni jaaliku linnaasi imaama wa min duriyati mu ne ko déet ñooñu nattooguma leen di ñëwaguñ ba ma leen di nattu kon moo tax duma leen jox benn ndomb tànk kon nattu dafa am njëriñ nattu dafa baax lii bu fekkee nattu la alhamdulillah dañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu nattu bi di jeex fekk ñu réussir ñu at mi ci examen boobu mu sippi sippaluñ ci ay bakkaar yëkkatilu ñu ci ay daraja euh, bindaluñ ci ay tiyaab noonu nag la borom bi subhaanahu wa taala di tegee balaa bu fekkee ne dañuy jël balaa muy beneen contraire nag donte nattu euh, borom xam ne dañuy wax ne day firi ñaar yépp day firi bu neex di firi bu naqari waaw waaw day firi bu neex di firi alors bu naqari bu ko defee bu fekkee ne dañ ne balaa maanaam ñu jublu ci balaa kon fii ci suñu waxtaan bi loo xam ne borom bi subhanahu wa taala nit ñi dañoo def lum leen jéppee lum leen meree ba tax mu indi mbugal waaw sawta azab yàlla da ko tudd ci alquran wax ne yàlla zontiqaam am na yar yu muy cawee nit ñi leen ko mbugalee fayu ci ñoom wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul kon yaru mbugal boobu am na alquran da ko tudd ci la bokk léegi nag boo xoolee àdduna bi ni muy doxee toujours damay jul injustice yu am ci àdduna bi fu ne jafal ndax taal nañ fa ay guerre population yi ñu ngi leen di noot koñ boo dem sax kuñ ne fi mu ne yaa jiite koñ bi sax nga jàpp ne fi mu ne yaa gën nit ñi ndey comme ni ñu koy waxee ku man sa moroom duma alors lu bon comme ni ngi ko junjee ci xadis bi tas na yàlla xaraamaloon yow mi koy tere yaay dof bi yaay ki dëppul ak jamono yaay raj yi bi ki nga xam ne dangaa dellu ginnaaw mu taxallif waaw ki civilisé wul yow la nañ bàyyi nit ñuy dund comme ni rabi àll yi di dunde yàlla waxoon nañu ne dund rabi àll moom nit maru ko def walla ay ka kanaanaamee balum waaw bal hum adal waaye wa yatamattauna kama taakul an amu wa naaru masoon lahu ñi nga xam ne dañuy lekk di naan di tëb di dal di bànneex comme juri kër yi ñooñu de nañ xam ne safara mooy seen eh, mooy seen delluwaay kon nit ñi àgg nañ boo xoolee ci jéggi dayo ci mbon ak jéggi frontière yàlla yi ak def limu tere ak tooñante ñoom ci seen bopp tooñante te daawatul mazlum nañ ko moytu mm-hmm. ñaan ak ku ñu tooñ ñaat nit ñooy ñoom lañu tooñ amuñu fu ñu làqu fulul ci yàlla ñu yëkkati seen loxo di ñaan tanaamu aynaaka wal mazluumu muntabihun yaddu aleyka wa aynullaahi lam tanam nga nelaw di xaran ka nga tooñ mu nga tëdd mënul nelaw di naan allahumma di wax rabbana yaa rabb nga yaakaar ne yàlla du ko du ko wuyu anka yàlla da koy wuyu yàlla daf koy wuyu kon yooyu yëpp mu ngi fi yooyu yëpp mën naa tax nag boroom bi subhaanahu wa taala jël ab yaram teg ko ci kaw nit ñi yàlla nekk ni ci alxuraan ay xeet nit yoo xam ne na ñoo xam ne ñàkk génne asaka seen alal seen tool ba leen seen bàyyi bàyyi loon moo tax yàlla lakk tool ba inna balaw naam kama balaw na asxaabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihina wala yastaxnuun dinañ xëy góobi ko lekk ko duñ ci génne asaka fa taafa alayha taaifun min rabbika wa hum naaimuun fa asbaxat kasahim hmm? qaryatan kaanat aaminatan mutmainatan yaatiha risquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi anumi llah fa adaaqaha llahu libaas al juu'i wal xawfi ma kaanu yasnauna civilisation doomu aadama fi mu àgg tey ah xam na xarit na at atat an amri rabbiha fa xaasab naa xisaaban asiiran wa adab naa adaban nukra fa daaqat wa baala amriha kon Euh, te yàlla buy nettali Aad ak Samuud ak ñi ci des waqad tabayyana lakum hmm? ah? wa maa qawmu Luutin minkum bi ba'iid lu xaw ma Luut defoon fi ne xeet wii def nañ ko lu waa Aad defoon def nañ ko lu waa Samuud defoon def nañ ko te yàlla ma jaaroon ak ñoom fa mu jaar ak ñoom mu ngi fi te ñun ay jaamam lañu kon mën naa nekkit balaa nag mm-hmm. du ko daam mm-hmm. ah, dafa mel ni bu ma déggee li nga wax eh, am na benn boroom xam-xam bu waxoon ni eh, nahnu fii zamanin bi mislihi kaana yursalu anbiya mm-hmm. maanaam ñu ngi dund ci jamono joo xam ni jamono bu daanaa dem ba yàqute toll foo xam ne yàlla yónni ab yónent pour mu defar leen mu mel ni sunu jamono fi la ñu toll fadilatu ustaz jazakumullahu xayran ñaareelu laaj bi dañu seetlu ne euh, koor gi mu ngi commencé la te seetlu nañ ni ni nga xam ne noonu lañ doon dundalee jàkka yi ci ay nawaasil ci ay tafasirul quran ci al muxaadaraat yooyu oustaz est-ce que niñ ko doon dundalee dinañ ko mën a dundalee noonu wala it bu ñu koy dundal dana am beneen façon bu ñu ko dundalee wala dé ci moment bi ñu toll ak euh, feebar beeg yi ci aju si euh, Ousmane jërëjëf dama njëkk wax asar bi wax ni ixshaw shinu fa inna ni'mata la tadum na ngeen tànn na na ngeen di ñagaseel seen dund ndax xéewal du sax loolu nit ñi dañ ko war a xam xéwal du sax gis naa benn waay boo xam ne dafa amoon ay xéewal toog ñàkk ko ñàkk privilège yi mu amoon ñu togg ceebu keccax añ këram doomam yi bank seen loxo ne duñu parce que xamuñu mm-hmm. te man ak yow bu ñu ko amee jël hmm? ñu ko amee jël mm-hmm. doomam yi bank seen loxo ne xamuñu ko bu ko defee nit ñi comme jàkk yi dem ci yomboon na waaye damay wax toujours ne boo demee ci jàkk yi histoire yi xuloo imaam gi xëccoo noddukat bi fii sama place la ci sàppe bi sarax yi sax dañ koy xëccoo ci jàkk yi dañ koy xëccoo jàkk yi yëgu gu ñu woon xeewalu jàkk loolu di wax ne balaa ngaa xam lëf rek nga ñàkk ko balaa ngaa xam lëf nga ñàkk ko léegi nag xam nañ lan di jàkk di jëriñ xam nañ fu mu toll suñu xol mais gis nga lii ñuy coow yëpp man damay wax ne macha allah ñun mm. ndekk ay jullit lañu ba léegi. parce que te jàkk yi ku ci am ñagg-ñaggu xool rek am nga xam ngëm yàlla nga si xool ndax dëggal dundal jàkk ku gëm a koy def innamaa ya'muru masaajida kon loolu ñuy yëg noonu noonu dama ciy sant yàlla ndax ñu ngi yëg ne suñu diinee lu rëy da cee manqué waaw euh, kaaba gi ñaari fan ñett yi ñu ko fi tëj moom di samit xaw naa xar nit ñi métti ko cooy dal ci kaw nguur waaw ba léegi ñu ngi dal ci kow suñu état yi wax ni lu tax diw tëj jàkk yi ku ne tudd président sam réew mm, mm. waaw lu tax mu tëj ko waaw moom ni mu koy justifier mooy feebar bi walaate bi dafa gaaw te jàkk yi barabu dajee la buñ ñu tas dindee dajee yi bu ko teree léegi nañu retirer nit ñi en attendant mm-hmm. feebar bi dem ñu dellu suñuy jàkk ak jàmm moom noonu lay gisee noonu lay expliquer am na ku nangu loolu am na ku ko nanguwul am na ku ko gëm am na ko gëmul. dafa nit ñi kenn moomul leen. kenn ku ci nekk ak logique bi muy demee ak ni muy xalaat xalaatee amul problème. waaye ma ñëw nag dama doon introduire rek ci salaaj bi ma ñëw ci dund gi ñu daan dund ci jàkk yi ci naafile yi ci tafsir yi ak yooyu jàkk ji di nekkatu fi waaye alxuraan ji ñu doon tafsir mu ngi fi man jàpp naa ne war naa mën a toog fii sama saal bi mhm. jël sama portable enregistré ci la ma daan tafsir ak heure ba ma ko daan def mhm. ñu créé benn groupe whatsapp tas ko ji ñëpp di ko déglu mën naa ne kon problème su amee da ngay ut badil alternative mhm. plan B faw mu am loolu moo fi sës bu ñu amee plan B baax na suñ ko amul ñooy perte kon nañu ut plan B yu bari ci koor bi tey gis naa vraiment fan yii ay boroomi xam-xam ñu ngi dundal alquran ji di ko tafsir tafsir yu am solo. muy tas nit ñi di ci jëriñu. kon loolu mën na nekk alternative bu ko kenn sàgganee. waaw bu ko kenn sàgganee dañu jël loolu incha allahu taala yàlla mën nañu koy defal tawfiq alors beneen mooy bu dee naafile yi gis nga. yéen bi saasam daf ñoo santoon di leen jun julli ci seen kër yi bu leen ko def muy ay armeel manam foo xam ne kenn du fa jaamu yàlla mhm, mhm. lëndëm këriis ñool ko bu leen ko def loolu malheureusement suñu kër dañ ko dundal dañ daan julli dañ daan nelaw ba biddanti mhm. léegi nañu tuub loola kenn ku ci nekk sa kër nga soppi ko jàkk maa ngi dem benn émission des gestes bërki démb ñi ma seqaloon plateau bi comme yow am ci ko wax ne moom jigéen la sax dafa aménagé benn salle këram benn chambre bu fa nekkoon dara nekku ci mu defar ko def fa jàkk lal te kaamil yëg ne sax moom lii yéex na ko def ñu bari ci seen kër am nañ fi ay place yu vide espace bi mhm. man fi ne moom laa def jàkk mag sama waa kër ñuy julli waxtu juróom yëpp macha allah mhm. la ma doon wax ci jàkk ji am ci loo xam ne dinaa ko mën a wax ak ñoom bayaan ak ñoom hmm? bu naafila jotee ñu ànd la euh, kenn ku ci nekk na na jàpp ne loolu tam beneen problème la ñun ñu ci bëri dañoo sàggan jànguñu alxuraan jànguloowuñ ko seen waa kër hmm. léegi kooku dina am problème kuy jiite ci kër gi dina am problème imaam xam nga séeréer yu ñoom seen àlloo sori sa mbokk yi sa mbokk yi nañ problème ñun alpulaar ñun amuñ problème ku nekk ñun man na ilimaan macha allah waaye séeréer yi moom ñi ci mën ilimaan dañ leen di compter sa Cheikh Abdoul Diouf fi ah, nekkoon ak Oustaz Lamine Senghor ci Diofior ak kan jeex na ñoom séeréer yi léegi en tout cas bëreetuñ bëreetuñ kon alternative bi mooy nañu ubbi suñu kër yi nañu ko soppi jàkk mu jeex loolu lañ ko def profitoo sax Oustaz eh, di toog avant jant bi di so ak sa waa kër ngeen di jàng seen alxuraan def seeni i azkar ak mhm. ba jant bi soo ngeen dog bu ngeen jullee suba wala balaa ngeen bu ngeen xaddee balaa ngeen julli suba ngeen toog ubbi seen kaamil jàng su fekkee ni yëpp mënuñ jàng sax am ci ko mokkal benn saar occasion la mhm. muy wax ñi ci def di répété balaa koor gee jeex kenn ku ne am ñaari saar ñett ñeent ñi fi a doon taaya ñu jàng leen taaya ci kër gi ñu xamoon ne bu ñu rokkooy xamuñ du ñuy wax wala bu ñu sujootee wala bu ñu toogee diggante ñaari sujjóot yi ñu profité jàngal leen ko kon koor gi dama jàpp ne benn école de formation bu mag la sax ren mm-hmm. ren koor gi mm-hmm. Mm-hmm. benn école de formation de haut niveau boo xam ne suñ ci génnee nit ñi ku ne dangaa war a yëg ne man lii su amuloon ndeke du baax ci man dama ci yokkoo macha allah dëgg la tabarakallahu oustaz bu ma déggee ni nga waxee ci koor gi eh, ren occasion la bu rëy boo xam ne mën nañ ci defaree lu bëri Euh, li nga wax ci nit ñi bi ñu ne dañuy tëj jàkk yi pour benn diire bu yàlla defee yëf yi dem rek ñu delluwaat moo am ñoo xam ni ànduñu ñu jiite jàkk yi kenn du leen ko tere moo am it ñoo xam ne nangu nañ tëj bi ndax ñoom it li ñu wax kenn du leen ko tere mais oustaz man benn xalaat bu ma déggoon ñi nga xam ne ñooy yenn ay may Eh, ku mel ni sunu oustaz fadilatu cheikh oustaz Dame Ndiaye dafa bokk ci proposition yi mu waxoon ne li mu mënoon bu fekkee ne mën na nekk waaye dem nañ bu ci biir yëg ne senegal ñàkk yar indiscipline daf fi bëri loolu boo ko bëggoon a organiser oustaz boowatul lu sot te mooy quartier bu nekk jumaa jafa nekk ñu organiser mu am ay nit ñoo xam ne dinañ fa mën a dem mm-hmm. julli fa bu boobaa mën nañu yóbbaale waa quartier bi mm-hmm. mu ne waaye est-ce que loolu dana yomb ci Sénégal mm-hmm. ñaareel bi ñu def noonu ci jàkk yi ma ne ko li tax ma wax loolu ustaas da ko wax léegi sa wax mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci jàkk yi jàkk yi moom lu ne la fay am ustaas Eh, dana dem ba laaj ne dawru bi maanaam rôle bi jàkk waroon a joué ci nit ñi man jàpp naa ne joué ko maanaam li nga xam ne moom lañ waroon a jëlee ci jàkka daanaka duñ ko fa jëlee ndax bu ñu noonu nañ ko def ci jàkka di fa julli di limité dina am ñoo xam ne daawuñ dem jàkka sax ba waxtu ñoo ñëw perturbé jàkk ji ndax jàkka yi da ngay ñëw taxaw ci bésu àjjuma ne ñaan sàppe yi ni mu war a tëddee mais danga gis koo xam ne daa ñëw benn fan waaw nga ne am na sàppe bu am benn foo xam ne espace nga ne diw dugal ci sàppe si rek mu gis boppam hmm. yooyu noonu nag buy am ci ci jàkke ñu toll boobu est-ce que loolu mën nañ ko organiser jàkke wala de hmm. waaw alhamdulilah lu sax daam wax moom laay wax rek sénégalais moo mel noonu dañoo féex suñ féexu pour bañ wax ne dañoo indiscipliné dañuy feex suñu féexu bopp dañu am excès de liberté moo tax bu ñu génnee territoire Sénégal problème bi ñu njëkk a jànkuwanteel mooy problème mu liberté bu ñu duggee Gambie rek xat bu ñu duggee Mauritanie xat bu ñu duggee Guinée Bissau xat foofu dañuy yemloo nit ñi ñun fii kenn du wax kenn dara mbedd mi sax boo ci doon def lu dul noonu dañ naan mbedd mbuur hmm. loolu moo fi xew alors lu nit ñi bokk lu ne neexu la organiser Sénégal te jàkk yi da cee bokk ci nit ñi ñëpp ñoo ci yem màkk sax sa waa unil aakifu fii wal baad la alquran wax boo ne woon jàkk ji ñett fiy dugg benn waaye bëgg ñëw nga ne ko mat na dara la wa anna al masajid lillah moomoo jàkk ji yàllaa ko moom waaye borom bi subhanahu wa dafa jox pouvoir doole loolu nag ñooñu lislaam xam nañu ko ñooñu lislaam ñoom xam nañ ne yàlla dafa jox pouvoir doole moo tax boroom xam-xam yi doo fekk mukk bu buur dogalee nangam ñuy xëccook moom lu tax même bu fekkee li mu dogal du yoon ñoom am nañ ngànt seen diggante ak seen borom subhaanahu wa taala mm-hmm. loolu lu jar a bàyyi xel la buur moo ne jàkk yi dama koy tëj en attendant ba mbir yi sedd même bu la neexul nangul am nga ngànt sa borom même boo jàppoon ne du yoon nangul am nga ngànt sa borom buur nag moom itam mu am information yoo amut mu am agent yu koy liggéeyal yoo amut sécurité réew mi moom lañ ko teg ci loxoom wa ida jaahum amrun min al amni aw al xawfi al xawfu la adaau bi walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastambituunahu minhum baax mën nga xëccoog man ne du état islamique nangam nangam mais fu nekk comme ni ñu koy waxee ci wolof fu nekk la fay ñuul moo fay ñag fu nekk la fay ñuul moo fay am ñag kon autorité bi fi nekk territoire bu mu nekk moom lañ sant mu organise ko lu fi am ci anarchie mooy responsable lu fi am ci feebar mooy responsable lu fi am ci ñàkk jàng ak réer mooy responsable ni mu nekkee responsable ci loolu bàyyi ko mu nekk responsable ci lii yow am nga ngànt sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala ku ko xoolee noonu doo ci am benn problème da ngay féex bàyyi autorité bi mu féex mën nga nag ñaan mën nga ñaan masalan ne autorité bi may ñu ñu ubbi jàkka ji nga jàppale ñu ci ñaari police yu ko organisé mën ngaa wax loolu bu ko neexee mu nangu ko su fekkee am na ñaari policier su gisee ne mënu ko mu ne la mënuma ko mu jeex ah imaam yi toujours ñu ngi toog di waxtaan di évaluer euh, bërki démb dimanche Sadam Ndiaye association bi mu jiite man maa ngi ci dem nañ suñu réunion toog évalue mbir yi gannaaw bu ñu demee fan toog ak équipe bi waxtaan ak ñoom laaj leen ñu wan ne affaire bi dellul ginnaaw dafa gën a garaaw donte namm nañ suñuy jàkk est-ce que ñun imaam yi dañu xëy ne d'accord wuñ ci autorité yi wax dañuy rebelle contre ren léegi ku nekk na dellu ubbi sa jàkk te ñoom nee nañu situation bi si le plan médicinal dafa gën a garaaw te ñun nit ñi autorité bi ak ñoom yépp nit ñi mooy seen cible population bi mooy sa cible ñoom nga bëgg a sauver wala tulqu bi aydikum ila